asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu naafila 21 guddi ñaar fukkeel gi ak benn ci weeru koor sopp nañ ku ci julli ñeenti rakaa ñeenti rakaa rakaa bu ci nekk nga jàng faatixa benn yoon jàng xul huwallaahu ahad ñaar fukki yoon mel na ni ku moomoon àdduna bi yépp ak li ci biiram mu dundale ko ci yoon yàlla mel na ni it ku jàng tawraat injiil zabuur ak furxaan te buy génn àdduna dana mel ni bis bu mu juddoo woon ci ñàkki bàkkaar sopp ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suwaybu bu Mbàkke